nañ leen ko sargali teer na wàcc gànnaar Cheikh Bamba dem na Congo ba ñëw dem seeti gànnaar nañ leen ko sargali teer na wàcc gànnaar ku xam taxamee taam xilli gi nag biral ne waa Kajoor Cheikh moom tey réewi gànnaar Cheikh day dundal diine wan leen yoonu yàlla bu baax buur yàlla yóbbu ko may koy may fa gànnaar deful waxul dafa dëkk ak jaamu am li am buur yàlla taas nu ci moom taasaale gànnaar man yërmandeem ji ci jaam yu néew yi doole ci réew mi laa ne woon di ko jooy ngir yoonu gànnaar waay gaayi kaay leen waxtaan tuuti ci mbiri Cheikh kaawteef la ca jile waay jarfal na ganaar waay gaayi kaay leen waxtaan tuuti ci mbiri Cheikh kaawteef la ca jile waay jarfal na ganaar mam Samba Jaara nee na xam yàlla moo baax moo fi gën jile waay mu gëm te moo muñ te sooboon seeti gànnaar ba man samay wax subaak ngoon waay lu dal milim réew ba bamba génn ci ñoom dem sañ ci gànnaar kon naar yey nanu njëmmiir booba nag la ma wax ndaar yaa fi gën ndaxte bamba féete gànnaar naar yaa ni gànnaar ga maalum xatta jóg tukkulóor ya na wana gongo ñooro fooxa gannaar naar yaa ni ga maalum xatta jóg tukkulóor ya na wana gongo ñooro fooxa gannaar wala feni deeta waawaay kajoor a gëni le réew Bamba moom ka fa feeñ feeñul fa gannaar amul fa ñooro borom Tuubaa amul feneen ñu faf ni weddam moom naar ki xeeb nit ku ñuul dem raasi gànnaar gisul ku mel naka moom mu seex la xoom wereer tanaaw layla walaf beey sangu gànnaar kii moo yilif nit ku ñuul ak nit ku weex bi lee amul fa ñooro walaay amul fa gànnaar borom Tuubaa amul fa ñooro wallaahi amul fa ganaar nu gaawtu tëb nag akuk réy boole kook xamadeek wolof aku ndof gu mat bañ faale ganaar ñoom nag ñu xëy raw sunu reen daj ko gaaw te wolof mooy dof kii bëgg ko gis bu doon fa ganaar ba ñoom dëggal nañu jiitu kii ba daa ngir ga barkem ba doy baawaan fa te man ku may laaj ku mel ne moo moox la ma xam te loola moo fii sax tey sax fa ganaar ma jaaxal ku mel ni moom bu ma ko laaj ndax man jisuma ko fii kat ak fa ganaar Samba Diar Mbaye nee ma jaaxal ku mel ne borom Touba bu ma ko laaj ndax man gisuma ko fii kat ak faganaar amul ci réew juróom-ñaar nit ku mel naka moom diggante luy tukkulóor ak naari gànnaar ab soose ab lébu ab taasonqe kenn du fi moom waxuma la ca wàllas réewi gànnaar bul wax fa fuuta jële naa wut ku mel naka moom ndax sangi Fuuta Jële ñooy jaami gànnaar bul fa Fuuta Jële naa wut ku mel ne borom Tuuba ndax sangi Fuuta Jële ñooy jaami gànnaar ku xam ne yàlla di buur te gëm ne Ahmadu moo yeneen bi yéen nitu fii ak yéenu gànnaar na xam ni moom ki nu moom nuy jaam moo ko sutal ci ay moroomam yi fii yaa fa gànnaar ak yaanu xam ni ci dég-dég ak a gis lanu am ci ñoom ca wàll tali kat siiw na gànnaar borom tuuba bu doon garab cib guddaay dig bu doon ci reyaay dig xay bu doon ci weraay digiir fa gànnaar bu doon guy dindi jaan bu doon daqaar digu rëy goo xam ne péncam ma bay rek penc gànnaar faslun fi maam Samba Jaara Mbay nee Samba Jaara Mbay ba Cheikh kawe gaaña mbaax ak ci diine ak mu bëbbaluk tabe fii mu yol ba gànnaar wala fee feexaan bu baax fëliyaat di jooru ca kaw sar xolle ji fa xaymay naari gànnaar ngërëm la reddi bu baax ñii ka baax ñële naa ko mujji ñaana walaay maalum fa ganaar ngërëm la reddi bu baax ñii ka baax ñële naa mujji ñaana walaay maalum fa ganaar mindee fi gis ci saaral ay biram na mu mel ci diine ak tabe guy baawaan ba gànnaar wala fi jébbalu xaat ca teele jaari fa moom di jaamu ak di liggéey tey roy ne gànnaar hidaayay rot nag xaalis wurus ak i sër gëléem ak sëf mu fab jox naa di gànnaar jaam ak njëgëm i mbaam ay sëf mu boole ko jox way laaj ndegam fii la mbaa way féete gànnaar bëggu lalal borom tuuba bëggulub xaalis lu ñëw mu toxal mu jóg fa moom jëm ca waylaaj mbaa ca ganaar wolof ya xam na ko fëliyaat xam na lii tukkulóor ya xam na lii raw na nag luy naar fa ganaar ba loola weexee turam wër bëree wi ñaar nit ña wut si ko muy leeral ba ganaar ku ñëw mu baaxal mu dem ku gis ku gis ku ko gis mu xam ni kii ab kemam du fi du gànnaar kuy gan fi moom mu dalal mu toog fi moom mu teral muy dem mu jox ko alal lii laaj ko gànnaar kuy gan fi moom mu dalal mu toog fi moom mu teral muy dem mu jox ko alal lii laaj ko gànnaar moom day amal ko amul mu am ba mel ni ko am bu yàgg a yàgg ne ki bi aaram fa gànnaar du mer du yokkat du wax moom day kilee ma la jël teem ba noppi di laaj ñëpp naar fa gànnaar ndax moom a ñaanul te aayul siisuli soxorul ku ñëw mu baaxal mu mel ne Cheikh fa gànnaar mësula réer abadan feek raw rawam dafa jub day xam lu feek raw ba raw way raw fa faslun fi fadli ixwaanihi alkiraami ala xayrihim bi maam Samba Jaara Mbay na maam Samba Jaara Mbay jikkoom jikkoy nit ku baax lay doon ngir rekki bokkam ñoo gën ci réew yi juróom ñaar bal ca gànnaar gis ci ñoom dafa am xam-xam rafet mën yor mbooloo ci diine ba mel ni Cheikh Faganaar ci baay ba cay maam dañoo baax mbaax gu mat ni ñu mel fii ci misaal ne walla day maan Faganaar seen ngor gu mat la te seen xam-xam bu mat la te seen njub-njub gu mat la te seen way jolli Ganaar ba Bamba feeñee ci ñoom yokkal na leen ci kawek cosaan ba ñu tiim fii ak fa gànnaar ñoom fuukarante nañoo waa réew mi tiim nañu leen ñu fuukarante ki naar far tiim fa gànnaar xam leen ne maam maaram doomam yi jël nañu ndam li fenkoo fi réew soo ba gànnaar maam Samba Jaara Mbay xam leen ne maamaaram doomam yi jël nañu ndam li dee fi fenkoo fi réewu Sodaan ba Ganaar ba gaañe séddoo ci lu baax booba maamaaram moo jël tëmbeel bi fi réeroon naari Ganaar mu jox ko doomam Habibullahi Mbakke turam maam balaay sa tëgéej gi baaw ba Ganaar mu jox ko doomam muhammad mooma gën fa kajoor te gën bawal gën fa saalum gën fa ganaar bur yàlla feeñal ko mu yab seex di xut bu di xëwusu kooka mooy bamba mbër mayu ba ganaar faslun fi taslimil baydaani ilayhi wa maqaaratihim fi xable safarihi fi lbahri maam samba jaara neena samba jaara neena ba naar yaag see ba seet ba gis fa moom lu amul fa ñoom ñu raddi bu baax dem wax ko gànnaar ñu wax ne wallahi yaa moom newul di wolof mbaa muy wolof bu di semmal naar yi gànnaar ñu gaaw tuwal toog ne kuy waat wax ne moo naka bir ba seyxi bamba kawe seyxi gànnaar waaj leen ñu jàlli fi moom jibbal ko tey sunu mbir ndax loola mooy li far noppal fa gànnaar ku gis ku mel naka moom looy nekk ci jàlli fa moom ku am ku mel naka moom yaay gën fa gànnaar bennet bennet di fa dem di dellu ak di fa am njubag alal faf ci ay jaamam fa gànnaar ñu publi bamba fa naar ya fooree seen misaal ya ak jimbilang ya woon fa gànnaar ñu boole seen yoxo tàccu fab tabala ya door furóoñe sar fa gat di gànnaar seen njañe jaayu ni baax maalum jë ak lañu naas këy di jib ñu di wax naaye nu xam le kii ab kemam fi réew mi deefu ko gis kii moo biral yoon wi dee fa wut fa gànnaar ki sunna faare ya kii jeexal na teere kii yirif na koo xam ne mooy fa gannaar samba jaara mbay leena kii sunna foore ya kii jeexal na teere kii yilif na koo xam ne mooy fa gannaar borom tuuba kii sunna foore ya kii jeexal na teere kii yilif na koo xam ne mooy ab seex fa gànnaar ñu boole ay kaala yeew ci baat di sàkku ngërëm ba ak si tey wax ka neex di gànnaar ñu jaar si tuuba te fóorey naar ju ak ne nuut ku ak jébbalu far xàccee ko gànnaar moo tax ma wax ni bu leen seet nit ku mel naka moom ci dun bi yéen ñitu fii ak yéenu gànnaar koo xam ne seet na ko baa koo xam ne wut na ko moom dafay gëlëm far di teppeeral ba gànnaar faslun fii sabqihi maam samba jaara mbay neena cheikh samba jaara mbay neena cheikh bamba moom raw naay maasam te defu ko jot raw nay moroomam yi fii ak yaa fa moom mooy ki déggal jullit déggal la charte ya def déggal lu doon sunna déggal yoonu gànnaar ay teginam akuk mbaaxam la déggale yoon way dem ba gànnaar te lii mooy jib fa gànnaar déggal na xam-xam xolam laa biir na laaye na biir way ñu far xam ba mel nay cheikh fa gànnaar koo xam ne day wuta xam fa moom na xam ne xamul mu xam ba mel ne xama kon yaa fa gànnaar ku xam fa moom ni xamul na xam ni mooy kadi xam koo xam ne xam na fa moom mooy réer ba gànnaar xam-xam fa moom la di jaar bay wut ci kuy wuta xam fa moom xamal li le yow mi seeti gànnaar maam samba jaara mbay nee na koo xam ne jébbal na koy bir moom durus abadan ci yaari këri li lee tax këng ci gànnaar jébbal ko mbir yëpp mu dig ndanjaama fii ba fa ñoom yilif ñi fii ak ñeneen ak ñaa fa gànnaar sëriñ moom jaaxalul way xam ku xam li ma wax mu xam ne wax ji la xam yay wax fa gànnaar fasun fi ixlaaqihi salihati allati lam takun li gayrihi fi zamanihi Cheikh Samba Diarra Mbaye nee na te ay jikkoom laa laal nag tuuti ndax ci moom waxtaan matalu ko bir naar fa gànnaar limaamu Sharaani def na téere boobu mooy jikkoy Bàmba laajal Cheikh yi biiw moo diw koo xam ne na ko gis jikkoom ya fees ko di baawaan ba gànnaar cosaani yoonam juróom ak yaar la tee nga ma laaj ma dal koy wax mu bir la yaa ko gànnaar jafandu téere bi roy yonen bi ak lu mu jox jullit du ca am paal fii ba gànnaar ak fekk lor ak moytu ak moy ak di ak a jox jaambur ba xaqam li lee tax raw na gànnaar xërul ci àdduna dëddoo mbir na moom dafa doyloo yàlla ñaareel ba yoon nen fii ba gànnaar dafa ragal yàlla am xam-xam te diine jamat ngëm gaak njulit ga taxoo biir na gànnaar borom tuuba mosula xaawu mosula rëylu njisalulit mosula rambaaj te waat naa lii ba maam Samba Jaara Mbay nee na musula lu araam musula laal lu araam musula gis lu araam musula laal lu araam sellam gu mat la ngi nii lëm bir na ganeer musula gis lu araam musula laal lu araam sellam gu mat la nga nii lëm bir na du jëw du wax lu am wutul ku déggi solom jëwul nga ci ku moom fi ba gànnaar xolama ñaanul bañul nit xeebul ñafa moom day walaf ñooya moo ak naari gànnaar du weer jullit te du reetaan benn day suturaal en yib du yërlu lu baax li doy na gànnaar jàpp ak julleek zikkar ak yërtéere ak rafetal ak digle ak tere lay def fii ba gànnaar du wax lu bon du ko def du xaste diglewulit lu bon ku bon mu defar muy fii ba lu bon ci waay mu defar lu sew ci waay mu réyal ku yoon mu xamal muy sut ba du mer dafay lewetal kàddoom di nooyal ndaxug laa biir ci jaamitali moo siiw baganaar koo xam ne def na ko njëkkar nit ña xam ko bu bér la fekki ko gi baax siiw na ganaar ay taalubeem ak ñu dul ay taalubeem ak i taalubey ñeneen ñooya moo fi moom baganaar ab dëg-digam doy na waa duniyaa ku agsi fa moom gis farlu faw xale dee fa wax ba gànnaar ba li mbokkam jëlul daal biddiwul ku ko bañ berul jamaanoom wutulay xam ba gànnaar maam Samba Jaara Mbay nee na ndax faalewul ku ko tooñ te sàkkulit ku ko bañ ci mbokkam ak ñu dul ñoom fi ba borom tuuba du tooñ du suufeel du deteel noo newul ragalul ay noon de sàkkuli noon fi ak fa gànnaar koo xam ne leble na njëkkar mooy ragal ko ko fay moom nag lu baaxa di baaxam fii ba gànnaar muñ ak lewet defaruk mbokk ak yërëm ku mënul defal ñoñam ak ñeneen lay def fa gànnaar talal ndi jooram la baaxoo moom daam lu fanaan lu duli ceere fi moom fi ak faganaar yéwén nga mat na teraangaam wër na réewi wër waa réew suure na nday jooram ba gànnaar borom Tuuba yéwén nga mat na teraangaam wër na réew wër waa réew suure na nday jooram ba gànnaar xañkat ba ak ka ko tooñ ak ko bañ ba dogoo lay may di jéggal di jokkoog moom ba gànnaar tarkay kanamam dafay leer waxtu woo ko nuyoo mu dal di ree ba kontaan yow ne gànnaar borom tuuba tarkay kanamam dafay leer waxtu woo ko nuyoo mu dal di ree ba kontaan yow ne gànnaar koo xam ne soxla na jaar fa moom mu daal di ko faj ci gindiku bët te lii tiiñal na ganaar du digle wor te du tas yaakaar du daw ku ko laaj day laaji laaj di fegul laaj ba ganaar xolam bu la bu dee may waayi du seet la fa des koo xam ne may na ko day gee jël ni ganaar maam samba jaar mbay nee mayam bu fa buur bu ndax dafa rëy fa buur bu rëy réer na gànnaar faslun fi masarihati rijaali shidaadi min ulamaai sudaan maam Samba Jaara Mbay nee na Cheikh Samba Jaara Mbay nee na jom doole jom gongo yaa gëm yàlla gëm dogalam moom waat na wàcc na bir nay réewi gànnaar fu grace woote na ndax moom di kuréel dajaloo di mbër ci jaam ñi day ndaanaan baganaar këmpeene jib lamb jay gor bamba aksi bu gaawu wub leen fi ab taxawaay dem wub faganaar ñu simi seen sàppo bamba muy kilifa gri jaali kaña ko ci jëf biir naganaar man nangu na te ku xam lii nangu ne man ku nangu teel a nelaw sottal man nangu man nangu na te ku xam lii nangu ne man ku nangu teel a sottal ne ga naar laajal ku xam le yow mi laaji xam nga xam ne semmal na fii semmal na gànnaar borom tuuba muy guuy li waxtu wu jubloo mbalkandaama ya yor laa jël te ga dootul ñaar fa gànnaar njàmbaar ga tar na ngëmam sax fi lu rëy na te aay na ngaaj dogante akub la biire gànnaar moomu njëloor la bu yemoo benn rab yi ne nuut yi nangi faaw di taañaañal baganeer moo tax ma waaru di leen laaj moo lu ko bañeme njëloor gu mat gu seloor gu fii feganaar man de la cay la ma wax koo gis dafay ñeme am reefoom ba dee ak si mu yab lépp faganaar faslun fi ixtilaafi ahlu zamanihi li fadlihi alayhim wa sabqihi maam Samba Jaar Mbay nee Cheikh Samba Diarra Mbaye nee na réew maa ngi soowu ak a wax naa Bamba réer ndax moom day melul ni ki waa réew ba gànnaar asal melul ni ki ñoom ndax sut na leen fa boroomam ak fa yonneen ba bir nay Cheikh fa gànnaar Cheikh Samba Diarra Mbaye nee na bu ñuy tëkkaati doomi jaara xaraam na xaraam na ak tëkkaleem xaraam na ak tëkkaleem tey fii baganeer bu ñuy tëkkalee kenn ak doomi jaara jar ndax xaraam na ak tëkkaleem tey fii baganeer xasub jullit daganu te xam ne kum tëkkalee moom xaseef na ko yéenaa leen baganeer tëkkale koog njayte lay doon buñ ko enquêté gis lu tax ñu suufeel ko lii wax ko gànnaar moom kay giseef na ko réerul kenn lu mooy ki jusul bëccëg ta kooka du jiital yoonu gànnaar ay gët bu doon tax a xeleer di gis te bu doon dem seeju buñ ca waxul mu jublu gànnaar ay gët bu doon tax a xeleer di gis te bu doon dem seeju buñ ca waxul mu jublu gànnaar yaaram bi yow sax lu ci xamul gi ci ñoom yow ñaa la ci xamaa kon yaa koo gis ci ñoom ni ki men xel muy solu laa mu gis ci man di mu yeen ni àlli buy wax la muy gis ci ab gol booba mu gisul moo ñaar tali moo waral ñuy wax ba gànnaar man seede naa te dëggal naa li ma seede du deñ ne raw nga way raw ya raw way fa ganaar faslun fi xalamati saqi wa zuhurihi bayna albiladi ila Congo maam Samba Jaara Mbay neena Seex Samba Jaara Mbay neena yaaram bi labbayka yow sut ngay maqaama ku dul yow gaañi xam na ko say wax sax na ganaar noo xam ne wan nga nuñ jëmmiir sak cu teel di rafet leeral nga réew yi ba leeral réew yi gànnaar yow mi kuréer ku la wut si dox baak si fi buy wàññi kuy wecci cheikh buy fenke gànnaar kàccoor baak si fi day dal di nooy ne dëlëf te kooka seytaane dootul soxla gànnaar faqiir bu jaaxle ba jug ndax yow bu ngeen di mu daldi tàggoo ki ñàkkam bir na gànnaar moo tax ma wax ne lay laaj tey du neex a ab dof bu jàppi jineem wértil ba gànnaar maam Samba Jaara Mbay waa jéeri xam na la yow waa géej gi xam na la yow waa dex gi xam na la sawturu sut na gànnaar Konaakiri ki Gabon ku ngoog garaam ba sa daawoome xam na la jiitu fi yoonu gànnaar ba ñooña nee na nu nuut tey wax ni merci bu wér afis ku ciy téere yëg leen lii ba gànnaar kajoor bawal jolof ak saalum bawaalo ba fuuta xam nañu jiitu yoon wi jiitu gànnaar te lii ma wax ku ci am daggeeg werante ne ñëw fi man ma wax ko mu xam lii bir na gànnaar ndéem nag gisul mën a laaj lii waa ju mel ni ki man ci lii bu dul nun na laaj lii naari gànnaar li tax ma woo seede waa gànnaar ci lii dafa am ci lii li toore fi nun wekkee fa gànnaar fasun fi safarihi ila gànnaar baxda rujuu'i min xaybati albahriyati wa hiya xaybu thaniyatu albarakatu maam Samba Jaara Mbay neena Cheikh Samba Jaara neena banaar ya jaaxle ci seen bopp ak ñi ci ñoom ci yaari mbëri fi lottal këng ci gànnaar yaa jug bu gaaw bu rafet ndax xol bu laab bi ci yow man yeeg mënul yi ngaar leen jaar fa gànnaar ànd ak ndigal lu la buur bu rëy bu xam ba diggal ak yërmandeem jamu jagleel naari gànnaar gànnaar ga yëg leente naa Cheikh Bamba moom ki nu yaakaar tey ci diine ju jub moo rëkk si gànnaar ñu xëy di xëbbu di yi xëbbu wut si la ndax yaakaar ju yàgg ak naari gànnaar ñu gis la waaru ngëréer mes ta fa ñu far jaaxle ka xoolee ka lakkate ko gànnaar faslun fi tashbihihum ash-shaykh bi akabiri ulamaihim wa awliyaihim hina ra'aahu wa lam ya'rifuuhu wa talabahum al-mashaari'atu baynahum kama talaba al-mashaari'atu bayna ash-shadiidayni fi al-mashaari'i wa lihaadha sammaytu haadha xisata mashaari'ati gannaar yu wa huwa xisatu yuusufiyati fi al-husni li qawlihi ta'aala nahnu naqusu alayka axsana alxasasi wa kama kaanat tilka alxisatu axsana alxasasi fi alquran kaanat hazihi alxisatu axsana alxasasi fi hazihi alxasidati aladimati almislu maam Samba Jaara Mbay nee na ba gis ba niiree ci ñoom ñu tëb tëkkale la ak ñeneen te loola leen jumtal naari gànnaar ñu xëy la jiinale ak ay mbër yu lukkiku yooyu dañoo ubboon seeni mbër ba wetti gànnaar ñu gaawtu wax leen ne koo kii moo ubale baw waaye ti xibla yi tey jaaxal na gànnaar ñu daldi di composé tey xas dal wax ne bu leen yàggal di may mbër lu mi def ndam fa gànnaar gànnaar ba gànnaar ga jeex def leen di moytu ba woon ba tey ku dul ñoom du leen jar fal fa gànnaar te booba seen njortu moo leen war ñu defe ni ñaañu jar yaa di seen leen fa gànnaar xam kadul ba xam te di sañ wax tëm na leen ana kuy attana jébbal njëloor boppam boppam fa gànnaar ñu rët ba wax ne ko yow loo xam ci mbër mi ba wax lii léegi am da nuy tiital fa xamkat ba wax ne bu ngeen dee laaj ma wax la ma xam wër naa juróom-yaari réew ba si gànnaar luy mbër ci jéeri ji ak luy mbër ci dex yi kemam nekkul ci ñoom li ma wax day biir fa gànnaar ñu daldi wax ne ko yow nag lii nga wax dañu koy dañ kumpa bal xam ko yóbbu tey lam bi gànnaar xamkat ba wax ne wallaayi laa biira tax ma di leen wax lii ma waxta dana leen yey fa gànnaar mi mbër ku koy laal na naw dooleem bu baax tanam xar gaa ki saalaal dul jeexee nu gànnaar yem leen bu leen laal ku xëy ub lambi réew yi juróom-ñaar mbëri mokkul ko muy mokkal si gànnaar yem leen yem leen bu leen laal ku xëy ub lambi réew juróom-ñaar yi mokkul ko muy mokkal si gànnaar mii mbër du mbër yi fi deefaa gis du mbër yi fi deefaa ub du mbër yi fi daa ub lam wallahi mii di seeful am kemam abadan wallahi moo yi deefaa gis fa gànnaar ñu far du mooyu ne nun tey kumpa daantinu kii day farle mbër mi di ciital naari gànnaar déeyoo ba dal ñu di lakkaateeka woote di wax naaful la baax na bu leen rus tey fa gànnaar xam leen ne gàcce moo war tey ci nun te ne kii mokkale réew yi ba ñëw tey lam bi ñu dal ne nuut ci lu dul ak laale gàcce la kon ñu dal di daaneel dara pop naari gànnaar ndéem laale am na nu upp ngeen xam ne jël nañu ndam ndéem déet ñu xam ne kilee mokkal si gànnaar nu far ko jébbal sunuy mbir léegi muy sunu njiit nuy reen mu far di fi buutub naari gànnaar xamkat ba wax ne xalaas ëskay xamul akaay bay ko ba sooru njëloor buy lambi gànnaar laa biira waay jeena boy laa biira waay di ko wax mu dal lay daw ne kuñ tuumaal fa gànnaar bu wa yombul mu jël noppam ya sàkki ko daaj ne far fa tuus ay gëtam tey fii su gànnaar te loola la sax su doon ni ñenn la woon ñu dal di lay fettu làmmiñ yaa ko gànnaar li ma wax ku ko xam day dal wax li ma wax te dal di xam ni kile ay mokkal si gànnaar waa ndek defar tey niki gi yàq la tey ku defar moo tax werante di def ca bay fa gànnaar koo wax ni tëmbal mu wax ne benn moo gën a fees te fekke waa ajaaya tax ñuy waaj fa gànnaar maam Samba Jaar Mbay nee na mën digle tere laa man nag ku nangu di ku noppal ku gantu mu jëm na wuuf ku xëy xasante akuk maasaar gorong ya dafa teewul ne buy teew xasam way rot tereel mu të boo bayee mu dal di gis sa bu wan la loo ëllëlee moom laay bañ fa ganaar nag bu kenn tay dem leen seeti man duma leen tereeti man li ma wax laa wax fa gànnaar foofee ñu dal di fa def sël xit werante wa dal ñu wax ni lii lu nit xam yee nu gànnaar noo moom sunum réew te noo moom suuf si atte ko tey gan bàyyi ko ca ne tey day nangu gànnaar nan dal di laale ba xam noog moom ku réew mi di yelloog moom mu moom kon a doon góor fa gànnaar njëbbal ko ndeem am na njëkkug laale kon lanu doon xas noo di waxtaan ba walla réew yi gannaar ñu dal di fay wayaloo tey tànn mbër yi ci seen biir ak ya fay jogeyaan tey mbër fa gannaar boole ki xargaa ki déeba ya maam ya bawoon ak ñu xam ya ca wàllas réew yi gannaar ba noppi wut si la def benn dëgmal ta xas xas loo ko defe ni ñooy ublam bi ku seetlu gaaña ba jàkkaarloo melee ni mu xam ne gaañi weg nañu gën gi dal fa gànnaar moo ñoom dañuy mane gan am ñoom dañuy tële gan am ñoom li ngay gën a leen tiital fa gànnaar am yow li ngay doyadil dunyaa leen tax a jug am ñoom dañoo xemme moon sa gag ci gànnaar am yow li ngay aji moo tax ñu xëy dajaloo nda xam ni dajaloo sag weet fa gannaar allahu akbar ciy subhaan weet ak ajay ba gaañi xemmee ma léewoog yow fa gannaar am ñoom dañoo bañ a xam say bir jiitu ba tey am ñoom dañoo def ñu deefulu fa gannaar géew boo taxaw booba géew tas gaañi xam na ko tey la mbër yi fii deeti xëlamoo suuf fa gannaar fu guraas yi ak si di xas buum xamul la ko ay xam naa tey tey la géew bay tas fa gànnaar sewet gi tey ku mu jay bal kooko xëy di la dab galaaj ga toj na te kenn miim til fa gànnaar ku miim na juk dal jël wàllam ku xam li xam nayam kurée er tay ma daal koy wax fa gànnaar xam-xam liñ koy doye boo jaaxle nga yor la nga xam te xamkat bu fii la biire gànnaar danaa yëgal tuuti ñii lay sóoru wax ju fi am maanaa fa bari tey leeral ba gànnaar te tey ma bàkk la lool man samba maa la ko laal te tey ma déggal ko ñii ak ñaa fa gànnaar samba jaara may na samba jaara may samba jaara may na Cheikh samba la lool man samba maa la ko laal te tey ma déggal ko ñii ak ñaa fa ku déglu bañ moo sanal boppam ku déglu tayam noppal na boppam ne yaayub lambi gànnaar fasun fi tahridihi ala masarihatim ayna azamu ala masarihatihi cheikh bamba man far na maag yow yàlla far la yow yoneen bi far la yaayub lambi gànnaar sa weet di tey ku mu ba jay boppam ba ñëw bëgga til jibnaar fa ganaar seweer gi tegtal la ci weetal ku weet ki baliib moo tax nga weet tey ba weetal seexi ganaar buur yàlla may na la tey wallahu yaasimuka yu feeñal na firndeem naari ganaar moo tax ma bakk la yow saw bakk réeru ma ndax saw bakk laa njëkke jiitu si yoonu ganaar jom doole jom gongo yaa gëm yàlla gëm dogalam yow gaañi tiit na la sem yiin ji na yaaram bi yow am nga fulaak fayda réew yu ñaar xëy jiin nga di leen mokkal ba gànnaar yaram bu baax bi bëggal ci yàlla ak ci yonen ñoom ñaar nga am réew yi wut laa am ba gànnaar buur yàlla fonk na laak yeneen ba teg la ci kaw fonkeel yi soodaan yi ak fonkeel gànnaar yaaram bu tedd bi yaatig daay ubale nga gol ñi des di sébbu yu deeful taal fa gànnaar ndaanaan li boo daanee damu byax sa ñiib lu xajul ci ñii la wut si te def leen naw baganaar ndaanaan bu dee daan dafay daan waaye xam ni fariit muy xool fi benn bërëb nim looy fa ganaar njëloor bu fa dee fa ganaar wayli wayli dafay jib njañ ji jaayu fa xaymay naari ganaar cëy say jalooree ngi ganaar naari xam na ne wallaahi yaay ki fi yelloo ate ganaar xelel bu juddu ca boobee tang mu doy ko fëlel te fur jëli doy nag waat fa ganaar xam naa lu defeef doleeti foofa ca gannaaw ak defam xanaa tëggaat lambi ganaar faslun fil madaariati wa surati iyaahum على الأرض ومدين من الملأ الأعلى وتوضع البيدان وتسللهم فيه بعد ذلك وفي هذا المعنى أخوال جليلة وأمضاح جميلة يقول maam Samba Jaara Mbay nee na ba bëri tiite di lakki ñëw te ànd ki ay seboo ki ay sefoo yooyu jiital na gànnaar ba noppi ak si di leewoo ak yow ca ba ndaxam bay daan ya jaaxle na ndax lawoon fa gànnaar finqoo ba dal nga ne leen pel xes ñu xëy ne jirim ne xëy jooru nga jommal naari ganaar misige rëkk malawul axlaa ba dal di la bakk fa pey bu rëy ba taliw mpoor na ganaar tey bir na leen neka doon yow tey di yow te ba yow yaa di yow kenn du yow lu yow fa borom tuuba tey bir na leen doon yow tey di yow te ba yow yaa di yow kenn du yow lu yow fa ganaar lamiñ yi saxi ci nit ñi ak ci jinne ak malaakaale seereel fii ba naawum nga waa penku um nga waasow wàqan ak yamin ya fasas tey um nga bay daan yàpp tiit ne lu doon waay ku sàggi sunub sàkk tey ba weer waa ji yënkee fi gànnaar kilee kanoo weer te saggib sag bu saggiku tey naa kenn defeetunu gannaaw tey fa gànnaar koo mu far wane ak doo fa xam ku fa moom ak koj fa moom mokku leen mokku leen jëy ji faganaar ñu dal di sar xolle way far dal di jébbalu xaat fasaase njébbalu gay hakiim faganaar njébbal ma def njooxe bal tey mësta dokk fa doon naar di wolof wala dib naar faganaar mbooloo mi menn la tey askan wi wenn la tey delloo nga diine cosaanam biir naganaar borom tuuba mbooloo mi la tey askan wi wenn la tey delloo nga diine cosaanam biir naganaar maam Samba Jaar Mbay luy mbër yu lukkiku ak luy mbër yu si pëli bër nga boole si ñu mel new dër fa ganaar sa pel gu la yow koo fel mujjul ni nërëm ku weddi gaañi yinkee fon fi gànnaar yii jël kenn du ko furle gaay deete bakkan am naag borom bor mooy semmal na gànnaar naa nen du feeroo ki doj yaay doj dangay doju la nag ñu gis la di wax naa yeenu gànnaar kii doj la am lu ni roog moom laam ba feeru fi yow tey tey lu googale dootul ñaar fa gànnaar doxiinu baawan wak soox ba fay na ko baa ñuy dellu ñuy ñakkar bi ñeetaan fa gànnaar koo xam ne dammul ci ñoom wuuteeg fa xaj ba du mbaa muy rëngës di la laaj ci mpaj ba gànnaar finqoo ba baax na ci ñoom ndax wan leen fu ñu agul ñu xam ko tasak la biire ganaar day maan gi xam ne ku dib seex waxti leen def lu jiitu ñoo njëkk a doon say jaam fa ganaar naar sew na ñaw na tafaram xel ba dee aku lamiñ wande daal isa boobe jóg na ganaar jaala buum nga ko ubji lamb ubji fi nun mu yetti xibla yi ub tey lambi gannaar wan walla des woo ubul lambam ci xibla yi mokkal nga waa réew yi mokkal naari gannaar saw bakk weesu na yow di tëgge tey nañu mokk yow kenn tëggaale wu leew ji fii ba gannaar yaaram bu tedd bi yow tëggoo nga lamb ba noppi dem tëggoo tabalay naari gannaar yaaram bu tedd bi yow tey jël nga nam li fi réew soodaan jël la fa réew bay daani gànnaar yàllaa akub yonneen te bir malaaka yi seere bir jinne bir nit bir na gànnaar neex na xewoo doo jay abadan doo dox di woote ku lay màggal ne gànnaar yàllaa la akub yónneel malaaka ya it màggal ak jinne ak nit bir na gànnaar mindee xam na ne dokkub yàlla yaa ko fi yor ñu dënnu wut ak naari gànnaar buur yàlla fal na la yow yeneen bi fal nala ngay njiital murid yi di njiital cheikh yi maam Samba Jaara Mbay nee ahlul shariati ak ahlul haqiqati ñoom xamal nga leen fu ñu àggul woon fa gànnaar ñoo njëkk jooru ca dem bi ba mel ne dañoo xamul daraati nga yeexaat leen fa gànnaar ñoom kuy weranteeka diingat booba la leen ku laaj ñu wax ko la semmal naari gànnaar worom li beñ ak i las-las ak siwul sa palaas sa tey ni démbule ak ëllëg baganaar worom li beñ ak i las-las ak siwul sa palaas sa tey ni démbule ak ëllëg baganaar subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin sëriñ Muntaqa Mbakke Basiir yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi sëriñ Saalihu Saar yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko ba ñu yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa lépp mu def ko ñu kaw njortam band bii seen mbokkum taalibe Ousseynou Gueye moo ko def di ñaan képp koo xam ne déglu nga ko yàlla na sa paj ajo boo ko déglu it ñaanal nu Cheikh Mouhamadou Abdoul Karim Samba Diarra Mbaye sama borom yokki leeram te taasoon ci barkeem gànnaar gii mu bindoon ci benn xaaj bu njëkk bi moom la ñu génne nii ci band incha allahu rabbi ñoo ngi waajal ñaareelu xaaj bi jërë ngeen jëf. xas